mu ne faslun al afdalu an yaqifa arrajulu alwahid an yamini alimam mu ne al afdalu li gën an yaqifa mooy mu taxaw arrajulu waay alwahidu wala arrajulu góor alwahidu te di kenn an yamini alimam si ndajoor imam bu fekkee ñaar ñu julli la kenn ak imam li gën mooy mu taxaw si ndajoor imam mu ne wal isnaani ñaar fa saa'idan ba lu ko ëpp nag li gën xalfahu moo ñu taxaw si ginnaaw imam fekkee mën nañ ñaar ba jëm kaw jëm kaw nag li gën suñ julli mooy ñu ñu taxaw si ginnaaw imam mu ne wa tasixu dina wér salaatul mamuumi jullik mamuum ida taqaddama nim jiitu na alal imam si imam lakinahu waaye nag yukrahu si def na ko ida kaane nekk na li xëy daruratin sudul la bu fekkee loolu waralu waralu ko boobaa tiim nañ ko fekkee jàkk ji feesul loolu nag imaam maamul ko may ñu ko imaam waaw may waaw loolu wa naxu wa tajus na dagan nag asalaatu julli mun faydan di aji wéet xalfa safi si ginnaaw sàppe ji loolu tamit dagan na nga julli yow dong si ginnaaw sàpp fekkee sàpp bi daw fees mais sax bi gën nekk fi yow doog nga taxaw fa julli loolu tamit dagan na mu ne koy wéyu ko dafa si weef na tafriqu sufuufi tàqale sàppe yi min gayri daruratin si lu dul lor loolu nag mooy sàppe bi feesagul nga dem si ginnaaw bëgg fa taxawal beneen sàppe loolu mooy tafriqu sufuufi min gayri daruratin loolu tamit sim nañ ko wéju dina dagan an yusalli mu julli almaamum maamum fi makaani ci place ala bu gën a kawe min makaani imam ci place imam comme imam nekk ci suuf nga nekk ci kaw loolu dagan na illa an yaqsa loolu nag dafa loolu nag dafa jublu bi zalika ci loolu alkibre rëy bu fekkee nag kaw gi gën a kawe imam da ciy jublu rëy kon bu baax julleem du wér kon fa takkun dina nekk salaatuhu julleem batilatun di aji yàq batilatun di aji wala yajuuzu dagan an yusalli mu julli ak imam imam fi makaani ci place arfaa bu gën a yëkkati ko mi maaj ci place bi nga xamante ne alayhi nekk na ci asxaabuhu ay maamum yi te mooy asxaabu ay àndandoom mooy maamum yi imaam nag demul mu taxaw ci place bu gën a yëkkati ko place yi imaam yi maamum bi taxaw in kaane nem nekk na fi gayri safinatin si lu dul bato gaal ok lu dul bato nag in kaane fi gayri safinatin mu ne fa in kaay nem nekk nag yasiran di lu néew fekke nag imaam li mu gën a yëkkatikoo place mu taxaw li mu gën a yëkkatikoo place maamum yi dafa néew ka shibiri ba ba ba mel ne shibar ba tonne ka shibiri ka miqdaari shibiri waaw bu toll ne shibir mooy shibir mooy lii wala mbex si te jubluwul bi hii si loolu alkibér rëy kon fa inna salaata naka julleem sahihatun aji wér la wayn kaa nem nekk nag aksara di ëpp min zalika si shibar batal yàqu na alayhi batal yàqu na alayhi julleem yàqu na wa alayhi ak julli maamum kon waa julleem lay yàqu julli maamum lay yàqu fasun aljumaatu fardun fardu aynin aljumaatu juma julli juma fardu aynin farata jëmm la wa saayu dox ilayha jëm si juma tamit wa saayu dox ilayha jëm si juma waajibun aji war la al baidi si ko sori xabla ni daal lu njëkk ñuy noddu bi miqdaari ma si kém la nga xamante ni yuddi ko dina jot juma ji waaw mu ne julli juma farata jëmm la fardu ayn mooy farata boo xamante ne kii mënu la ko defal mooy fardu ayn jëmm si jëmm ju nekk la war mu ne dox nag jëm juma sooy dox sooy dem juma dox ak say tànk mu ne loolu war dafa war al al baidi koo xamante ne dafa sori juma ji war na si moom ba avant ñoo noddu mu dox ñëw mu dox ñëw si juma ji bi miqdaar ma si kémte laa di xam ne di ko def na jub juma mu ne wa al qadiri war na aji jege juma ji nag bi zawali shamsi si jéngal ñu ko jant bi fekkee koo xam ne nag dafa jege juma ji bu jant bi jégal ñu ko la ko dox mu jug sol sol yërëm sol dàllam jëma jumaa ji boobu la koy war fa qiila am ñu ne bil adani si nodd la koy war si noddee la koy la ko loolu di ko doon ci la koy doog a war mu ne wali wujubi ha ñeel na waru jumaa sabaati shurutin juróom ñaari sart al awal bi si njëkk ak taklifu mooy man mooy nekk mukallaf kon fala tajibu du war ala sariyin si ndaw kon ndaw jumaa waru ko wala majnuunin du jaageen ku dof ku dof tamit ay jinne jàpp wala ku tàqali ko xelam sagom kooku tamit jumaa waru ko wa naxrihima ak yu niroog ñoom ñaar asaani ñaareel ba xuriyatu mooy gor fala tajibu kon jumaa du war ala abdin ci jaam wala man nu jaageen koo xamante ni fii nekk na ci moom shaibatu xuriya na ci tas na ci tal gor koo xamante ne nag nekkul gor gu ma sëkk comme mu kaa tëb ku muy jotoo wala mu defar ku ñu ginnaawal nga xamante ne ah mu kaa tëb mooy jaam bi nga xamante ne da da nga kaa wax ni soo ma joxee nangam ci alal nekk na gor mu nekk ci di kër kër yi di la jox matagul xam nga ba léegi jaam la waaye nekkul jaamu ma sëkk ndax li nga ko waxoon su matee rek mu daal nekk gor mu dabbar mooy ku ñu ginnaawal mooy jaam bi nga xamante ne danga kaa wax su ma génnee àdduna nga gore jaam boobu tamit ah jumaa waru ko shaayi ba taxawu la lañtal gor la wa walakin waaye nag yustahabu soppeef na lahu ñeel ko soppeef na jumaa soppeef na si moom jumaa soppeef na lahu ñeel ko soppeef na jumaa si moom soppe sopp na nag mu ñëw jumaa wali sabi ñeel sopp na si xale tamit xuduraha teewaayam si jumaa ak taalisatu ñetteel la si charte ya ak dukur ya mooy ngóor kon falaa tajibu du war moom jumaa ala ala imraatin ci jigéen arrabiu ñeenteel bi al iqamatu mooy sax kon falaa tajibu du war ala musaafirin ci ku tukki illaa yéen lu nag dafa yéen iqamatu arbaat ayaamin sax ñeenti fan nga xam ne boobaa sax du mën du mënati wàññi fekkee da ngaa yéene sax si place ba ngay tukki ñeenti fan kon waa jumaa war na la alxaamis juróomeel bi al isti al istitaanu mooy dëkkuwaay mooy dëkku al istitaanu mooy dëkkuwaay waaw bi maw joxeñ ci bërëb boo xamante ne mooy dëkk mooy dëkk bi maw joxeñ ci bërëb boo xamante ne soo ko def na sàkkoo dëkk fii ci moom waaye nag soo demee ci àll foo xamante ne jumaa sax amu fa dëkk fa ah nga xamante ne sori nga dëkk bi ay nangami nangami kilomètre si diggante bi jumaa yi kon baa jumaa woon asaaris juróom benneelu alqurbu mooy jege baxaysu laa yakun fuuf dul nekkee min haa ci moom fii waxti haa ci waxtu ba ala akxiri ci lu ëpp min salaasi amyaas si ñetti kilomètre waaw ñetteel juróom benneel ba mooy nga jege jumaa ja waaw xamante si sa diggante ak jumaa ja du ëpp ñetti kilomètre wuxu moom alqadru mooy mooy mooy mooy alqadru mooy dogal qadru wala distance alladi bi nga xamante ni yabluguhu dina ko jot ak sawtu rafii baat bu yëkkati ko ida kaanat nen nekk na al riyaaxu ngelaw bi saakinatin di aji dal wal aswaatu baat yi haadi atan di aji tekk di aji dal wal muazinu aji noddu saytan di ko baat ku foor baat ah su nodde waaw waaw su nodde ba bu fekkee chart yëpp daje na aji noddu su noddee ba fi baatam ye- yegg foofu mooy foofu mooy ala aksari min salaasi amyaal yi mooy li ëpp ñetti kilomètre waaw fekkee nag fi nga nekk charte yëpp daje na ci kiy nodd ci jamono jeeg ci ngelaw leeg lépp waaye nodd na te déggoo ko kon bu baax jumaa warul la waaye nag ba moom dawul amyaal yi door a waaye kilomètres yi asalaat yi di ñett kilomètres yi nag fi ñu koy commencé fi ñu koy wàññi fi ñu koy fi ñu koy natt fi ñu koy tàmbalee minal manaadi mooy si soora bi lañ koy lañ koy tàmbalee wala lañ koy tàmbalee natt wa fiihi wa qiila am nañu ne min tarafil baladi si catu dëkk bi lañ koy lañ koy commencé natt dégg nga wal milu kilomètre nag alal mashhuri si niñ siwee commencé ici comme ni ñu ko dikkee alfa ziraain alfa ziraain mooy junni xasab mooy mille mètres mille mètres mooy kilomètre wa tahdidu daytal bil masafati si distance al mazkurati ba di ko tudd innama xamal ni huwa moom fii xaqin huwa moom fii xaqin xaariji aji nekk la si aqu aji génn abad bi jumaati si dëkk bi jumaa bi nekk fekkee ki nga xamante ne si dëkk bi jumaa bi nekk la nekk nag donte fi mu nekk ak jumaa ji ëpp na ñetti kilomètre sax jumaa war na ko lii ban koy wax mooy ki nga xamante ne dëkk bi mu nekk ah, euh, euh, fi mu nekk nekk jumaa bi nekku fa waaye fekk ki nga xamante ne dëkk bi mu nekk fi la jumaa ji nekk donte moo jumaa ji soonte ay nangami kilomètre sax ah, jumaa war na ko moo tax ma ne innama xamal ne woo moom fii xaqil xaariji aji nekk la si aqu aji génn an baladi jumaati si dëkk jumaa ji wa amma man daal ki nga xamante bi hoo moom fii haa mi si biir dëkk bi fata ji bi dina war a ali si moom walaw kaan doonte nekk na ñeen masjid yi si jàkka ji ala si ta andiay si juróom-benn kilomètre doonte diggante ak jàkka ji juróom-benn kilomètre la sax jumaa war na ko dégg nga asaabiatu asaabiu juróom ñaareel ba si charte ya asihatu mooy wér kon fala tajibu jumaa du war ala maradin si ku feebar ku feebar jumaa warul waaw in saxa ne wér na nag qabla an tuqaam lu njëkk ñuy taxawal julli lazimatu jumaa war ko fekke nag dafa feebaroon feebar daaneel ko walaa ñu lu njëkk ñuy liqaam ah avant ñoo liqaam feebar daa tànni kon baa jumaa war na ko wala adaa yihaa ñeen na joxe jumaa arbaatu shuruuti ñeenti sart al awal bi si njëkk al imaamu mooy imaam al muqim bi aji sax dégg bu njëkk bi mooy imaam day nekk muqim ndax jàngoon si naxaashi ne la chartul imaam yi zakarun mukallafun aatin bil arkaani xukman yaarifu wa gayri bi fisqin wa laxnin waqtida fi jumaatin xurrin muqim kon muqim muqim kon ba fekkee nekkoo muqim dëkkoo si dëkk bi gan nga fi mënoo jiite kon xalaati si du wér moom juma afra benn benn benn juma ki ñu ko jul benn benn mbooloo rek wala wala bi imaamin musaafin di jaagi imaam buy tukki imaam buy tukki tamit juma war ko asaali ñaareel bi jamaatu mooy mbooloo yooyu yow mu gayru maxduutin nekkul lu ñu daytal nekkul lu ñu limité bi aala ni si lim maxsuusin buñ ko jagleel amul lim buñ ko jagleel waaye nag ngir wuute nañ si ñii ne ñaari nit mën nañ julli juma ñii ne fukk ñaar ñii ne ñeent fukk ngir maa ne fukk ñaar la wax lu mu bon bon jamat lu mu néew néew jamat fukk ñaar nit yoo xamante ne dañuy fekk kabaar yi ak sëlmal ba sëlmal bi kenn si wàññi ko ah donte noo dem bay wàññi sëlmal mu njàppam yàqu sax seen ñoom ñëpp seen juma yàqu walakin waaye nag laa toujours du doy min haasimu asalaati si ñett ngir maa leen ma wax li wala albaat di jaagal ñeenti maa fi maana zalik di jaagal yi nekk ci maana ñett ak ñeent te mooy juróom benn ak ak ak juróom ñeent maanaam moom kon moom mooy moom mooy nit ki pas de waaw ba li fi nekk laa budda mëntu ñàkk an yakunu ñu nekk adadan lim boo xamante ni tataqara dina saxee di si ñoom xadetum dëkk mu sax ni ñu ngay doyloo an xëy di ñu def ñeneen nekk mbooloo boo xamante ne mën nañ mën nañ mat nañ dëkk mën nañ mën nañ mën nañ dëkk amina ñooy wóolu ala anfusihim seen bopp waaw wa hada al adad bi lim nag charte la charte la fi ibtidaay si commencement gi laa bi laa fi doom bi jaay gën sax charte gi nag bu ko charte bu ñuy taxawal julli nan mat loolu waaye nag nekk ne dafa sax nekkul ne dañ ko charte jullit jullit bi yëpp duñ jégg duñ jégg lool waaye nag fa in qaddat fa in faddu nem fër nan wala nem taxalikoo nan min xalfil imam si ginnaaw imam wa baqiya des minhum si ñoom isna achara fukk ñaar li salaam yi ba sëlmal saxaat yi seen julli wér na wa illaa bu fekkee nag matuñu wa illaa bu loolu amul nag falaa seen julli wér ñun fekkee fu ko ñaani leen ñuy julli ba si yàgg am lu ñëw wala am genn bu dugg ci jàkk ñëpp daw am ñu daw wala am ñu rocceeku wala am ñu seen jàpp yàqu si biir julli gi imaam ba mu sëlmalee xool si ginnaawam ñu nekkoon si ginnaawam bu fekkee matum fu koy ñaar seen julli wér bu fekkee mën na ko nag seen julli wér saare si ñetteelu al jaamiu mooy juma kon falaati saxu juma du wér fii rey di si feneen fu lu juma juma mënees ko julli feneen fu lu juma wala ala fataxi di jaageen si kaw tig waaw mënees ko julli juma wala fee bayt qanaadiil yi di jaageen néegu qanaadiil mooy néegu mooy mooy église yeeg moom lañ koy xanaa bi mooy seen li nga xam ne seen état seen sonneel yeeg yooyu seen lampe pétrole waaw xanaa bi li mooy lampe pétrole wala fi maana jaamii du jàgge li nekk ci maana juma waaw li nekk ci maana juma fii xaqi gayri si xaqi keneen maana juma nag suñ ko waxee mooy rihaabuhu bayaal ba bayaal juma bi wa turuq ak mbedd ak mutasatu yi di jokkoog bi fii si juma ji mbedd yi nga xam ne moo jokkoog juma ji ak bayaal juma ja soo ko jullee te juma ja feesul sa julli baax sa juma baax إذا اتصلت نم جوكولون أصفوف ساتيا وضاقت خط المسير جاكل يعني فكانت ساتيا دو فيس جاكل فيس نو te ñu jokkale sàppe yi sàppe yi nekk ci mbedd bi ñu jokkale ko sàppe yi nekk ci biir mbaa seen julli wér na moo tax ne ila kosan nen jokkale na asuu sàppe yi waaye suñu julli nga ñëw dem fële beru fa tal ko si jaadu julli si julli baaxul moo bëgg nga ñëw ah même bu fekkee jàkk jaw fees nga xool eh, nga ñu- nga eh, sàppe yi si mbedd bi ñu jokkale ko ñu ñu jokkale ko ak sàppe yi nekk ci biir ba loolu xamul nag seen julli bi wax الرابع ñeenteel bi alxutba mooy xutba qabla salaat bi njëkk julli xutba bi njëkk njëkk julli ñu daal koy def wala tasixu du wér alxutba xutba illa bi xuduri jamaati lu ñu si teewaayu mbooloo waaw fekk naa du xutba te mbooloo ci nekk dëgg yooyu ndax xutba bi mbooloo moo tax ñu def waat leen fàttali leen seen diine dëgg si yàlla allati bi nga xamante ne tana aqlu dina fasoo bihim si ñoom aljumaatu juma mbooloo bi nga xamante ne si ñoom la juma di fasoo fekkee ne teewul teewuñu xutba ji wéerul waaw kon way saxabu def na sopp te kon loolu mooy la muy fukk ak ñaari nit waaw bu fekkoon solo xutba li fi nekk muy fukk ak ñaari nit waaw xutba ji wéerul ndax dana la allati tana aqlu bihim aljumaa mbooloo bi nga xamante ne si ñoom la jumaa gi di fasoo te mu fukk ñaari nit si ngir naa li wayu saxabu soppeeku na nag mu lay wax nag ñu soppi jumaa alzinatu taaru sol yëre bu rafet parfum wu bi ahsani siyaab si gën jaa rafet ci yére ñu gën sopp nag mu yëre bu weex waaw waqasu charib ak léegi say naanuwaay mooy fii wa taqlimul adafiri ak leel weey day weey nga leel yi ko wasi waa ko sot sa bëñ bam bam set ba xet bi yëpp dañ ba masu ci ak laal gët laal parfum wa naxwi zalik ak yu niroog yooyu wees ko tu dina rot fadlu jumaat faratay juma li mën a di ñeel feebar goo xamante ni yataaddaru dina ngantañ lu maagu di ànd ak moom al maagu ànd ak moom al ityaanu dikke juma bu fekkee ne danga am feebar boo xamante ne dafa la gàllankoor bu noo ñëw juma loolu waa juma woo wàcc na la rot na la aw laa yaqdiru aw wala laa yaqdiru du attan du mën a ñëw juma illa bi mashaqatin shadid li rek lu dul si coono gu tar waaw fekkee nag mën nga ñëw sa waaye bala ngaa ñëw coono gu nekk si teg co- coono gu coono yi ay coono ay coono gu bëri kon bu baax juma wàcc na la wa bi tamridin ak feebarle xaribun bu jege fekkee da ngaa feebarle nga am ku feebar te amul kenn ko taxaw wala mu nekk ci diggante mu nekk ci ci sukuraat nga am ku feebar boo xamante ne wóoru feebar bi métti na ba nga xamante ne yow yow jàpp nga ne soo demee jumaa ñëw di nga fekk mu faat waaw mel na mel na la nga topp wuutu ko nekk ci moom te wuutul jumaa wa bi xawfi zalimin ak ragal aji tooñ joo xamante ni lii dina la tooñ dina la lor fii maalihi si alalam aw na fii wala si boppam waaw fekkee nag da ngaa ragal ne soo demee juma am na ñu taxaw fii sa biti bi sooy demee juma ñu koy daj wala ay taxaw wala ay sàcc taxaw nañ si buntu kër gi sooy génn di dem juma ñu dugg si kër gi te kon boobaa doon leen jël say alal sa alal kon boobaa may na la nga juma rot na la may na la nga wutal juma aw xaw fi naa yi maa ragal safara waaw aw xaw fi naa yu maa ragal safara nga ragal ne soo demee jumaa sa kër gi dina dina tàkk ndax am na kër gi ne si ginnaaw buy tàkk ah soo demee jumaa sa siiwee woo ko mën na jàppaxle kër gi waaw loolu la woo ko jumaa aw saal yëpp na wala aji sàcc nga ragal ne soo demee dina sàcc data sa kër gi wala sa maa nga aw xaat si lu ko rabaa wala tëjub ah, ah, ka nga yoreel bor la ko ñeel wala nga yore nit bor fayoo ko fayoo ko te mu wóor la ne soo amoo te amagoo loo ko fayee te mu wóor la ne soo demee jumaa di nga fa tase ak moom te mën na la créer fu ay problème hmm? waaw may na la nga toog wutal jumaa wooxoo moom almu'sir mooy aji jafeñ bu loolu nag ban koy wax ne ki nga xamante ne dafa yore nit ba roppee te nekk si ay jafe-jafe tamit ñu ko fay mais ki nga xamante ne nag nay wala euh, bañ a fay moo moo tax kooku jumaa wàccu bil waxlil kasir ak pax yu bëri wala makari shadid yi ànd ak taw bu fort fekkee day taw taw fort te yoon bi am ay pax wóoru ah, kon baa may na la nga wut jumaa wa ak li suumi ak lekk ak lekk laaj wala ur yi ak ay ak yu natat ak yooyu laaj ak yooyu wala ur ak lekk parce que da ngaa lekk yooyu te mu xeeñ ci géej bi nga xam ne bu teel a dañ géej bu après suuma ak lekk lekk laaj da nga xamante ne soo ko lekkee xel yi mën a def sa gémmiñ yu yàgg nga bañ a lor waa jumaa comme baa may na la nga wutu jumaa dégg nga wala loolu yi ak rafle nit ki noonu soo rafle amoo loo sol day la nga wutu jumaa rek fasul salaatu safari julli tukki sunna sun sunna la dañ ci moo ko sunna waaw yonent bi nee na julli tukki sadaqatun tasa- tasaddaqa allahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu yonent bi nee na julli tukki julli tukki ñëw may na la nga wàññi julli ñaari rak parce que tukki bi tukki bi neex yàlla la te distance yi ñu la waxoon bu fekkee tukki bi mën na ko mu mën a wàññi distance yooyu charte yi dajale ci ñeenti neen tukki kooku nga nga jul nga wàññi julli gi di ko julli ñaar ñaar mu ne sarax la bu leen yàlla sarax mu ne faqbalu saraxatahu na ngeen nangu sarax bi nag kon nag bu naan damay di jàng ngóora ndax mën naa julli ñeent di ja- jéema matal di jàng ngóora ñeent yi moo la gën a ngóora fu sadaka daa wàññi boobaa na nga topp sunna yonent bi rek kon salaatu safari julli tukki sunnatun sunna la wala ñel na ko sababun ay sabab fa am yu koy sabab wa sharaitun ak i chart ak ay condition yu ci tëral wa mahallun ak i place fa amma sunanuhu ndaal sunna yéen amma sababuhu ndaal sabab ya sababuha mooy fa kullu safarin yëpp tukki sawilin bu gudd woo moom soo ko xamul arbaatu budul mooy ñetti budut mooy mooy tukki bu gudd wal barid barid arbaatu farasax mooy ñeent farsax wal farsax farsax faras amyal mooy ñetti kilomètre wal mil mil alfa ziraarin mooy mille kilo mooy mille mètre mille xasab junni xasab xëyee moom sittata achara farsaxan mooy juróom fukk ak juróom benn farsax xëyee moom samaniyatun arbauna milan mooy ñeent fukk ak juróom ñetti kilomètre ñeent fukk ak juróom-ñett ñeent fukk ak juróom ñetti kilomètre tukki bay tukki mu mat quarante huit kilomètres may na la nga wàññi masaraaa daal sart yi dafa am baatu ñeent la sart yi tax nag nga mën a wàññi ñeent la al awal bi ci njëkk an yakuna mooy mu nekk ak safru tukki ga wajahan waxidan di benn anam waaw wajahan waxidan zahaban dem faqat dong dem bi dong day mat ñeent fukk ak juróom kilomètres waaye doo compter doo ne xaama kon ne dem bi ak dikk bi su ma tamit ñeent fukk ak juróom kilomètres ma ma wàññi déedéet dem bi dong day mat day mat ñeent fukk ak juróom kilomètres falaa yaxsabu deful compter maa dalik ànd ak loolu ak rujuu dellu si gi kon li fi nekk yuctawu def na xalam def na considéré ak rujuu dellu si gi waxdahu moom dong mu ne dellu si gi dañ koy considéré moom dong ñu ngi considéré dem bi moom dong asaari ñaareel al azmu mooy dogu ala qasfil masafati si dog ay distance al mutaqaddimati yi di jiitu sama juróom ci kilomètre min awwalihi si njëlbéen ba min gayri taraddud si lu jëng jëng dafatan waxidatan benn jëng waaw ñaareel ba mooy da ngay naan da ngay dogu ne suba xe- fas yéene naa tukki dem ba Tiwaawan wala dem ba dem ba Paal wala dem ba Ndar waaw waaye bu fekkee dogoo woon tukki da ngaa xëy rek ah, eh, am lu la gaal rek nga daal di tegu si yoon bi te dogoo woon tukki kon boobaa doo mën a wàññi asaalif ñetteel bi ashuruu mooy xala fii si moom waaw mooy fan ngay commencé wàññi ashuruu si mu ne fal xadar yi ko ñu teeru te mooy ñi dëkkee dëkkee si ville yooyu comme ñu dëkkee Dakar man yaqsu dañuy wàññi ida yaqsu dina wàññi ida addal basatina nim jéggi na tool yi almansubati yéen yu nu askana ila tilkal baladi si si yooyu la dëkk waaw almaamulati yéen yu nu yéen yu nu sanc bi imaaratiha si ay sancam ki nga xamante ne ko yu teeloo la loolu nag bu njëkk loolu nga xamante ne dëkk bi da ngay génn rek gis tool yi mais léegi mën nga daw lu mat ñeent ko ñeent ko juróomi kilomètre nangam doo gis tool kon boobaa li masala bi kenn sukkandiku si kenn kenn kenn sukkandiku wala amud yi ko ñu amud waxum soo ko xamul saakinul baadiya mooy aji dëkkee àll yaqsu dina wàññi ida jaawaza nim jéggi na xullu tawxid damay quartier bi su ko jéggee rek man la commencé wàññi waxee moom soo ko xamul soo xamul xilla albuyutu mooy nekk ëllëg yi nga xamante ne suba waa def na ko samp yaaw yi ngir na ngir na tàkk ilayha jëm si moom mooy mooy kër yi ko wër rek wa saakinul jabali ak aji dëkkee doj ji dëkkee doj aw xadeetun mbaa dëkk boo xamante ne laa binaa di tabax fiihaa di sa am amul ci dëkk ba wala basaatin du jaagin ay tool kooku yaqsu day wàññi ida idan fasal nem tàqalikoo naak am nañ ji si këram ki nga xamante ne dafa dëkkee doj mbaa mu dëkkee mbaa mu nekk ci dëkk boo xamante ne amul tool amul ay tabax kooku su génnee si rek mën a commencé ferme waaye nag moom mun taxal xas yi nag day talu wàññi nga fi duxul ci dugg gi waxoo moom mob dawlu xas yi mooy tàmbali waayu wàññi nga fi nga tàmbalee ba ngay wàññi ah fo- soo agsee foofu si si dellu si gi foofu ngay arrêté soo ngay bàyyee wàññi araabiu ñeenteel bi ibaaxatu safari mooy daganu tukki wal musaafir aju tukki li lef bi ngir fo ka seydi ni ki rëbb min xayri xaajit ni sundul aajo koo xam day rëbb xiiful dara jotu ko muy rëbb noonu pour fo rek wala aasi ak aji mooy bi sabari si tukkeem wala koo xam ne tukki tukki koo xamante ne tukki ma yàlla la kal aajox ni ki jàmb daw sangam wala aaqil ak aji dëngoo ay waajuram ñooñu laa yàq suuna bi mu mën a wàññi bi mu wàññi ama mahalluhu daal bërëb ba foo kullu salaati rubaaiya bépp julli bu ñeent raka bi ko bi ko ñeent raka adraka bu jot na la waxtu ha waxtu waxtu ga fi sabari si tukki falaay boobu boobu ngay wàññi bépp julli buy buy borom ñeenti rakka la dégg nga kon baa julli yi lu dul ñeenti rakka day génn suba day génn timis day génn ñoom ñaar gën den wàññi kon mu tax fala fala yàqu deful wàññi ak suba si suba wala maghrib bi jàggal timis mu ne wa yàq suba dina wàññi faa itatu safari aji faat faat tukki aji faat tukki ki nga xamante ne soit um way jamono qadaha moo xam fayee na ko fi sawari si biir tukki gi aw fi la xadari mbaa si teew ki nga xamante ne doon tukki war a wàññi am ay julli yu ko faat si biir tukki gi su koy fay tamit fayu tukki la koy fay ñaar ñaar la koy fay day wàññi dégg nga moo xam ba mu koy fay si tukki la koy la ko fekk wala fekk ko si tukki waaw comment yu tim comme ni ñu matalee alxadari yi ko yu teew ah allati ki nga xamante ne taratabat toftalee na fii zimmati si loo samba ay bor fil xadari si teew kooku tamit su koy fay moo xam si tukki la ko fekk wala fekk ko si tukki su koy fay da day matal mun wa yaqtau def na dog nag alxasu wàññi ga loolu moo koy dog wa yaqtau dina dog alxasra wàññi ko lu koy dog ni yot iqamati arbaati ayaamin yéene sax ñeenti fan si xaaxin yu wér bi mawdiin ci bërëb soo tukkee fi nga tukki nga yéene fa sax ñeenti fan ah boobaa wàññi gi doo mënati wàññi faidatun li ak njëriñ la mu ne iqtidaau lmusaafiri bilmuqimi wa bil aks saxiixun lakinahu yukrahu iqtidaau lmusaafir royu ko aji tukki bil muqimi si ku si aji sax loolu dagan na wa bil aksi safaan ba tamit ah te mooy muqim ah roy si musaafir loolu tamit ñaar yëpp saxiixun lu wér la lakinahu waaye nekk yukrahu si bépp waaye wat sa akadu dina feddaliku alkarahatu si biir ba nag fiqtidaa'il musaafir yi si royuk musaafir bil muqiim si ku sax waaye si wér gi nag gën naa feddaliku si musaafir di roy si muqiim muqiim roy si musaafir moom lañ gën a mën too toloore que musaafir roy si muqiim fay ñaq daa nem roye nag bii si moom lazimahu wa nag ittibaaru toppam soo roy si moom nag soo xasee ba roy si moom danga koy topp rek kon kon kan moo war a jiite Hmm?
kan moo war a jiite si ñoom ñaar muqim ak musaafir kan moo war a jiite ma muqim ak musaafir kan moo war a jiite kon musaafir musaafir moo war a jiite gis nga Sénégal ñu naan musaafir di jiite
Hmm?
dégg nga Sénégal ñu naan musaafir di jiite
musaafir kay jumaa la mën ji jumaa mais julli farata julli juróomi mën na ko ji al musaafir bil muqiim ñoom ñaar ñëpp ku nekk mën na ji ci sa morom ñaar ñaar ñaar ñëpp dina ko sib mais ci biir gi nag fii la gën a fii la rawee fii la gën a sedd la ko
waaw mooy waaye nag fi neex sa daane mooy ne bii moom lazima bu war na ko itibaahu toppam wala iaadata déet baa ma alay di ko si war mu ne wa in iqtadaanim roy na almuqimu aji sax bi si musaafir fa kullun kum si ñoom ñaar ala sunnati yi aji nekk si yoonam dégg nga ñoom ñaar ñëpp ku nekk mu ne ñoom ñaar ñëpp ah, kum si ñoom ñaar ala sunnati yi aji nekk la si yoonam ku nekk rek da ngay topp chef sa rajo fi la fi la fi la ah, fi la xàllal nga nga aw ñu ñu ne ko loolu nu ñu nekkee mën a fay salli day julli al musaafir aji tukki fardahu farata te mooy ñaar rakkaam ila sallama nim sëlmal na min rakaatain si ñaar rakkaa ata day dikki al muqim aji sax image baqiya si li def ñu faraati si julli yii day julli ñaar rakkaa sëlmal si dikki ñee ñaar rakkaa jeex ok kon si wasul jamci meloo boole bayna salaatin diggante ñaari julli al musharikatayni ñaari julli yër yi way bokk fil waxtu si waxtu mooy loolu ruxsatun ruxsa la mooy lu ñu maye la bokk nag sunna ruxsa moo tax ñaar si la xaaj maa ngi daw jëm ci kooku bokk nag sunna yàlla dañ jaare naan wàññi si tukki ruxsa la ruxsa sunna la lii mooy ruxsa boole julli boole ñaari julli si bokk Yem.
si vacation plus ak yooyu loolu mooy ruxsa waaye dañ ko maye lii nag sunna la waaw sarax la bu ñu yàlla sarax te bu yàlla saraxee moom nga jël moo tax mu ne wo- boole meloo boole bayna salaatin diggante ñaari julli al mushrikateen yi ñaari julli yu bokk fi lu waxtu si waxtu wu fa tun bokk la comme tisbaar ak takkusaan wala timis ak gée xam ñoo bokk ña- ñoo bokk waxtu ida kaaneem nekk na fil bari si jéeri ji dunal baxri des géej gi fekkee si jéeri ji la nekk mooy fekkee ni yéeguñu bartoog la bëgg a wax ida zala nim jégal ñiku na achamsu jant alal musaafiri si aju tukki woowu moom fi mën xale mi ngi si rootuwaay ba ak woowu wala moom raakibun aji war la wan waa mu yéene am nuzula wàcc ba'dal ghurubi ginnaaw sow jant bi wan waa may nan ko jamaa mu boole bayna salaatin diggante ñaari julli yi jamaan boole suwariyatan bu bu ko dem suwariyatan suwariyan bu ñuy melal dina ko wax nag yuqaxu ñu ne ko nan la nan la man yuqaxu def na tàbbal azzuhra tisbaar def na tàbbal azzuhra tisbaar fii aaxiri waxtihaa ci ci mujjantal waxtu ga wala asar takkusaan mu tàbbil ko mu joxe ko fii awali waxtihaa ci njëlbeen waxtu day xaar ba tisbaar ba mujjantalu tisbaar ah wax tisbaar nga julli fa tisbaar soo paree rek fekk ba takkusaan dugg si nga daal ko julli wa kadalika noonu la mel ida nawaa di mbiri na an nuzula wàcc baadal isfiraar ginnaaw gelu gelu jant bi wa qablal xurubi xurub bi am nañ dëkk sax jant bi waaw fekkee da ngaa yéene tamit eh, eh, da ngaa yéene tamit eh, da nga yéeg ci oto da ngaa yé- eh, da ngaa yéene ni xam nga ne oto bi eh, avion wala oto bi luñ eh, si- jamono ji jant bi di gel boobu lay boobu lay agsi boobu lay tooy fi nga jëm kon xam nga waaw waxtu boobu day fekk muxtaar bi ci mel tisbaar génn ak takkusaan yëpp waaw mu ne la nga boole waaw nga boole tisbaar ak takkusaan man way ma def na boole benn mag bi gën a timis wala isha ak gay lil matari ngir eh, lil matari ngir taw wax dafa moom dong taw dong ah taw bu fort dong may nan la si nga boole tisbaar timis ak gay aw ma abdul mat maa mu ànd ak lëndëm mbaa taw bi ànd ak lëndëm moo tiimi ak ban dégg nga fekk dafa ànd ak lëndëm ak ban tey may na la nga boole taw dong may na la nga boole taw ba ànd ak lëndëm ànd ak ay ban tamit ah su muy taw nekk ban taw may na la nga boole ci ci misal ge laa ma abdul mati waxdaha wax ma nag mu ànd ak lëndëm dong fekkee day fekkee day ànd ak dafa ànd ak lëndëm dong ah waaw may ñu la nga nga nga lii ko nga boole dafa mu ànd ak lëndëm ak ban wa fi jamcihi aji nekkale ci boolem lépp tiini ñeel ban waxdahu moom dong xawlaani ñaari wax mashhuraani yu siiw wuute am na ci waaw bu fekkee ne yoon bi dafa am ban dong ah ba xam ah, may na la nga boole ba pax wala may ñu la ah loolu am na ci wu- ñaari ah, wuute am na ci ñii ne dagan ñii ne dagan wa sifatul jamci meloo boole nag li dalika ñeel ci ñu saggee an yu addina mooy mu noddu lil maghrib mu nodda lil maghrib ñeel timis alal manaar ci kaw sooroor ba wala waxtu yaa si njëlbeen waxtu ba gis ginnaaw waxtu bi dafa xat njëlbeen waxtu ba la ñuy ci kaw sooroor ba noddal ko daal di julli timis ñu julli timis ba pare ñuy toog tuuti toog toog ko yaaxtu ñu yéexee salaataa ji dem tëral ñu ñëw suñ ko noddee nag nekkul dañuy nodd rek julli ñu koy noddee si njëlbeen waxtu ba waaye nag toog tuuti toog ñu néew toog ko julli xam nga yu axir ñu yéexe salaataa ji leen xëy leen ñu néew su may addinoon topp ñu noddal lil isha ñel gee fii saxnil masjid yi ci jàkka ji adaanan nodd mun xam ne bu suuf ndax ginnaaw ah, al adaan li ilaami li ilaamil waxti ngir xamle waxtu bi la ak sàkk mbooloo wa talabil jamaa ah te mbooloo mi am fi kon ba jaru ñu koy ñor ci kaw moo tax ma ne su muy addina li isha fii sax ni masjid si bi jàkka ji adaanan nodd mun xam ne ko suuf su muy sol wu naxaar te ñu julli ko xabla ma koy bi shafaq li njëkk fàddu xonq jant bi njëkk fàddu shafaq balaa shafaq di day fàddu nag ñu koy julli su ma ñu fay ko nag jox ñu soppe moo ñu dem seen yoon wala yu salu na duñu julli nag al witar witar illa baada maghribi shafaq loolu ginnaaw fàddu xonq waaye nag duñu mën a julli shafaq witar lu nag jant xonq-xonq bi dafa dem ba fàddu ba dem yoon tafsir
Bueno, para, vos cuando me ¿no?
Claro.
Vamos a la todo, ¿no?
ak seen bopp yi ak ¿Mm?
ñu yem Waaw, bunt bunt bi ngay wax naan fas na bopp.
ak seen bopp yi ak Sunnatul muakkad. Waaw, après baax na.